sama doom Mouhamed Amin mu ne doomam Mouhamed Amin ci biir ak ah, euh, Amin Diané ak Amin Diané soxna soxnaam Khady Seye Khady Seye soxna Babacar ak ñeneen ñëpp Amin Diané sama yaay ci boppam suñu yaay bopp ci boppam suñu yaay bopp suñu yaay bopp suñu yaay xaqan la suñu yaay xaqan la bam ñuy def doom mu ne bam ñuy def doom alaaji booba ngay dund mu ne booba Seydi alaaji baba ndaw ngay dund dama daan ndekki suma kër papa suma nekk papa ba pare daf daan ndekki nekk papaam ba noppi jàll ci waañam jàll ci waañam mu defaral ko beneen ndekki mu teelu ndekki mu ndekki ñaari yoon su ma demee sa doo mën liggéey mu ne bu demee sax du mën a liggéey kat wala ndax boobu dafa si sar sama yaay mu ne kooku moo ba may doon yaayam alaaji baabo ngi dund Seydi alaaji baabo ngi dund tey sama yaay lañ ko <laughs> mu ne tey itam yaayam lañ ko tuddee sama sama sama sama sama maam mu ne maamam bi ko jur bi ko jur moo ma ko wax ne ma moo ko ko wax ne ko sa yaay ko wat sa yaay ko wat tudde ko boppam tudde ko boppam ñëpp kontaan ñëpp kontaan ñu ngi ànd ak ñun mu ngi ànd ak ñun moom lañ waroon njëkk a tudd sax mu ne moom lañ waroon njëkk a tudd sax tey mooy alaaji baabo ndax tey mooy alaaji baabo ci ñun ak ñam bàyyi ak ñam bàyyi kër ñooy suñu alaaji baabo sang yooyu lañu àndal sang yooyu lañu àndal ku ma ci tudd rek ku ci tudd rek. nag ma baal ak ñun lay baal ak. ci war a tudd ci ñu war a tudd. Mouhamad Habib Ka. Mouhamad Habib Ka. ma nga jógee ba. Ngabba di nga bàyyi ko ba Ngabba. ba Ngabba ba Ngabba. ci moo ko indi. Ah, moo indi sëriñ bi sant Diané mi. moo moo sëñ Saalum Diané. sëñ Saalum Diané. kon tabaarakallaahu sëriñ bi nee na kon fa tabaarakallaahu. Mouhamad Abdourahmane. Mouhamad Abdourahmane. doomam ma ngi nii toog. doomam ma ngi nii toog Alaaji Awa. Alaaji Awa Ndaw Alaaji Awa Ndaw. moo doon wëy moo doon wëy. Mouhamad Abdou Salaam ma ngi nii. waaw nee na man ab surgaam rek laa sëñ Amadou doomu xalifa bi. doomu xalifa bi doomu xalifa bi moom itam ni nga ànd ak moom. yéen ñëpp ku ma tudd rek mu ne kon ku mu tudd rek. yéen a ëpp sens yéen a ëpp sens. ni ma tudd ci ni mu tudd. ndax danaa leen bàyyeeg. mu ne danañu bàyyeeg. Seydina Mouhamad Seydina Mouhamad. mu tuddal ma leen dañ dem ba yéen. mu ne danañ dem ba yéen. ngeen gagné ngeen gagné. ni mu tudd ci laa ma ñam. fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin. fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin. sunu xol fees na trop mu ne xolam fees na trop. ci mbég ci mbég ak kontaan ak kontaan. yàlla nag yàlla nag. am na jaam yoo xam ne am na jaam yoo xam ne. bu ñu bégee bu ñu bégee. xiin la xiin la yàlla xam na la ko bu dé bu dé bu dé jamono bu ñé taw ndox la mu né bu dé jamono bu ñé taw ndox la dana taw ndox dana taw ndox bu dé jamono bu ñé taw alal la mu ñé jamono bu ñé taw alal la alal dana sorté ci barke bi ñun ci amna mu né xeyn mom amna ba bare bi jangi sey bi jangi sey na muhammad ban tan na ban tan na trap ci sey taw dara man ko tan yu trap ba mo koy sant ko do sama sama mouride sadi Babacar si ta sama turandoo ñoom ñëpp maa ngi leen a ko eh, eh, jël ngeen jëpp ngeen jàng eh, Faatiha ca kaw ibu sëñ Aliou ñu ngi ñu ngi lay nuyu nee na ngeen jàng sa Faatiha salaatul Faatiha ca kaw ñu dem nopp lu ji ba ca kanam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 Samane sànni ay kàddu bala maa wax. nee na daf na woon El Hadj Abdou Samane na sànni ay kàddu balaa muy wax. ñemewoon maa jog te sànniwul kàddu yooyu. waaye nee na ñemewut a jog te El Hadj Abdou Samane sànniwul ay kàddu de. bisimilah. man kii El Hadj Abdou Samane nee na salaamaaleykum wa rahmatullah. mu ne mi ngi leen di nuyu di leen siyaara. mu ne mu ngi nuyu waa kër gi yëpp. mais ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax. ki nga xam ne moom la ñu nga xam ne moom la ñu àndal. li nga xam ne moom la bëgg mu ne li nga xam ne moom la sëriñ ma di wax ne sëriñ bi mi ngi koy jànkuwante ci biir yàlla yi. jaam mu ne jëriñ jaamu yàlla yi moom. ñaar rek man. mu ne ñaar rek ko man. mooy jikko ak xol. mooy a ak xol. mu ne yàlla defal na ko sëriñ bi jikko jikkoom di rafet na xolam rafet su xolam rafetul. mu ne sëriñ bi nee na nit ki su xolam rafetul.

ngeen seq teraanga mu jëriñ la mu jëriñ la. nga jàllal bëgg. nga jàllal bëgg. xar ko ko gannaawam. da nga dem ba moo lay bàyyil boppam. bii nag. sëriñ kii ñu àndal nag. buy jikkoom mu ne buy jikkoom. gërëm nañ ko. gërëm nañ ko. rafet na na lool. muy xolam gërëm nañ ko gërëm nañ ko. rafet na na lool. li mu wax ci wàllu jaam jaamu yàlla yi. mu ne li mu wax ci wàllu teru jaamu yàlla yi. lii soo a ba nawet bi ñëpp xaw ci jaaxal. mu ne biñ demee ba nga xam ne lool. keroog bi may woo. keroog bi mu koy woo. boo moom suñu gën a ba tëj. mu ne boo moom. mais ba bëgg a tëdd. waaw ay heure ci guddi. waaw boobu heure ci guddi jot na. dama lay ñaan. mu ne ko dama lay ñaan. nga jóg nga jóg. jàpp jàpp dem ca rëru ba dem ca rëru sëñ El Hadji Babou Ndaw def nangam ak nangam def nangam ak nangam boo ko defee léegi mu taw boo ko defee léegi mu taw nga jublu ci suñu ma ko njëkk bii mu ne lim ko njëkk a yéemee mooy loola mooy loola ku ko mën a xamal koo bokkal ku ko mën a xamal koo bokkal yaa a kañaan mu kañaan te bam ko waxee mu ne ca ko ko waxee bañ jógee dem def ko bam jógee dem def ko ëllëg bu may xoolee na ma nakam te ëllëg sa bam ko xoolee nakam ci lu ngeen nekk daf na ko ñu mu ne ma noonu mu ne ko noonu la mën a demee. kon mu ne kon nag. jikko bi nga xam ne. jikko ji nga xam ne. moom la yàlla tàggee salaay salaam moom la yàlla tàggee yonent yàlla moom salaay salaam. wa innaka la ala xuluqin aziim. mu ne jikko jooju nag mi ngi ci sang bi yàlla waxoon sallallahu alayhi wa sallam ne ko mu ne yàlla waxoon yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ne ko walaw kunta walaw kunta fasan fasan xalisan xalbi xalisan xalbi lan tudoo fil ardi lan tudoo min hawlika lan lan tudoo fil awdika min hawlika mu ne ko su fekkoon ne mu ne ko bu fekkoon ne duutoon da nga xub sa xol duutoon da nga xub yaatal sa xol ba mu leer ba mu leer kii na ñëpp jàmm nee na ñëpp jàmm ñoom ñëpp danañ la fi bàyyi dem ñu ne wër yëpp dañ la bàyyi dem mu ne gis ngeen nit mën naa def plan bu ñu wër ko mën naa def plan bu ne. ba ñu wër ko ba ñu wër ko. waaye jikkoom waaye jikkoom moo koy téye nit ñi. bët bu set nga gis ko xoote. mu ne bët bu set nga gis ko xoote. junni nit ñëwandoor junni nit ñëwandoor. boo léegi xootee boo léegi bundi xootee. doom fukki nit doom fukki nit. jikko ma tax jikko jaa tax. nit mën naa tànn. mu ne nit mën naa tànn. mën na dem luy ji tànn. mën naa dem luy ji tànn. tante mbedd mi yëpp tante mbedd mi yëpp. mën na luy ji ay waaye pour nit ñi toog sées. nag. moo koy liggéey moo koy liggéey. ku luy. mu ne nit ku luy. ay sées mën nañ ko luy ay baax mën nañ ko waaye nit ku luy. buñ ko luy duñ ko jënd. mu ne duñ duñ ko jënd. jikko mooy woote. si jikko ci lañ lay xëy. jikko ci lañ lay xëy. kon nag sëriñ bi. sëriñ bi alaay bi sama nee na. fu mu jógee fu mu jógee. ñun yàkkamti ñu ànd ak ñun yàkkamti ñu ànd ak yow. bu ñuy bee bu ñu boddoon. boo ñu boddoon. duñ la ñemee jege. mu ne duñ la ñemee jege de. boo ñu xiise woon. boo ñu xiise woon. duñ la bàyyi. duñ la bàyyi. waaye duñ la ñemee jege waaye duñ la ñemee de. waaye li ñuy tóor mooy. waaye li wet tóor mooy. xam nañ ne. xam nañ ne. sa xol sa xol boo ko boo ko ubbee. kem sarra. kem sarra. ci luy lor doomu aadama ci luy ci kañaan wala ci kañaan. wala ci ci yàq doomu aadama wala sa nii. loolu nag loolu nag. yéen salaay salaam. yéen salaay salaam. loolu yëpp la doon dimbali ko. mu ne loolu yëpp la doon dimbali ko. ba muy wax ne. a ba may wax laa yan fon yawma laa yan fon maalun maalun wala banun wala banun ilaa man attaa man attaa laa bi qalbin salim loolu liggéey mu ne loolu mu ne loolu la doon liggéey dëgg la mu ne sëriñ bi loolu yàlla may na ko xol ba rafet am na ñett ñu mën tiitaroo mu ne am na ñett yoo xam ne bu la neexee ndamu ci waaye kenn mësa dégg nga ndamu santoon ndaw sëriñ bi nee na boo santoon ndaw da nga lekk hadiya da nga lekk hadiya ngir waa Njaane ngir waa Njaane bu duutoon Njaane bu duutoon Njaane da nga lekk hadiya ngir sa baay ngir sa baay nga teg ko loolu bu dul loolu. bu da nga lekk da nga lekk adiya ngir sa xam-xam ngir sa xam-xam. ñi kii kii lay ruujal. mu ne kii da lay ruujal. mooy sa maam mooy sa maam. Alhaji Babacar Diarra Alhaji Babacar Diarra. Alhaji Babu ñëw jël la. Alhaji nga ne baax na nga ne baax na. waaye danaa ko ci njaboot waaye danaa continuer ci njaboot bi. danaa bàyyi njaboot bi ko bàyyi ko njaboot bi. man dem ruuj ji ji. nit ñi ñëw lekk nit ñi ñëw lekk. yàlla yàlla yàggal la. min baal baax ci kàddu yi sa mbaax ak sa jikko feeñ na. sëriñ bi nee na sa mbaax ak sa jikko feeñ na. ak sa ñàkk kañaan ak sa ñàkk kañaan. yàlla seede na yàlla seede na ko. mënoon ngaa wax leneen lu dul lii. mu ne mënoon ngaa wax leneen lu dul lii. waaye xol bu sell. waaye xol bu sell ak ñàkk kañaan ak ñàkk kañaan. noonu wax moo tax nga wax lii. sëñ Mor Sall maa ngi lay nuyu. sëñ Mor Sall sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu. maa ngi lay laaj ana Modou Ndaw. mi ngi lay laaj ana Modou Ndaw. ana waa Mbour. ana waa Mbour. dëgg nañ ci yow lool yàlla xam na ko. yàlla xam na ko. maa ngi nuyu di ziar bu baax mboolem ku fi teew te sant yàlla bu baax tamit ci ma yàlla boole si mbooloo mu mel nii nga am na mbooloo yoo xam ne du fexe moo la ci moo la ci boole waaye machiatullah moo la ci boole yàlla moom nga xam ne nag moom moo am machiam bu neex boobu boole ji mbooloo mi ñu ngi sant ci loolu xaw ma ndax tax li ma bëgg a wax dinaa ko mën a àggale ndax sama xol dafa fees yàlla xam na ko ndax jëmb si ay euh, 5 heures si ngoon 17 heures dama wax sama waajur ba Amen, amen, amen.

yaa ngi toog sa caal